sëñ Cheikh ginnaaw ba la nuy nuyuwaatee ñu wax ci liggéey bu am solo bi douane def muy lu toll ci fanweer ak ñetti kilogramme yu sinébar cocaïne bu ñu saisir démb ci route nationale numéro un euh, boo fa euh, village boobu la ñu naan ngulul euh, ci opération interception boo xamee ni brigade mobile bu douane moom moo ko doon def jàppandalu subdu brigade euh, mobile des douanes bu subdivision bu Fatick Tito euh, ñoom ñoo amal saisie euh, boobule contre-valeur bi nag biñ ko xayma nee ñu toll na ci ñaari milliards sept cent millions francs CFA ci leeral dañ ciy ànd ak Aminata Goudiaby opération bi nga xam ni moom moo tax ñu teg loxo drogue bu ni mel ne ñu ñi ngi ko amal altine ji laata fukki waxtu ak benn di jot ci suba si village Ngulul Pël nga xam ne ci route nationale bi la nekk te féete ci commune bu Mbella Kadiaw lañ ko amalee ñi nga xam ne nag ñoom ñooy douanier yi bokk ci brigade mobile des douanes bu Fatick te nga xam ni ci subdivision des douanes la ñu bootu ci njiitalu lieutenant colonel Mamadou Alpha Dieng ñoom ñoo jàpp lu tolloo ko fanweeri kiloy cocaïne ñett drogue dure boobu nag ne ñu ñi ngi ko dencoon yoo xam ni dañ ko rangélé woon ci benn oto Mercedes oto bi nag nee ñu immatriculation bi ci nekk bu bitim réew la buñ sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ni service communication douane moom moo ñu ko jébbal ne ñu nag ci xayma xaalis bi nga xam ne moom la drogue boobu waroon a jar mi ngi toll ci 2 milliards 700 millions de francs CFA ñetti nit nag jot nañu leen teg loxo ngir ab enquête ñaari fan ci ginnaaw douanier yi nga xam ni ñoom ñoo féetee ci kër Ayib ci département bu Nioro itam jàpp nañu cocaïne yi nga xam ne nag moom la ñuy def nee ñu dañu bëgg gën a xeex li nga xam ni moom moo di trafic drogue di ko jaarale ci yoon yu mag yi nga xam ni moom la ñu tuddee corridor ay pexe la yoo xam ni nag douane sénégalaise bi weeru janvier bi weesu la ko tàmbali jërëjëf Aminata Goudia bi ñu wax ci waxtaan wu yaaw yi ñu sóobu woon ci deux semaines ci ginnaaw ci wàllum yoon ak ni muy doxee ci réew mi tey ji la nar a jeex sëñ Cheikh. voilà euh, ni nga ko waxee euh, ñaari ay bés daanaka ci ginnaaw lañu ko tàmbali woon euh, waxtaan boobu nag tey lay jeex. Euh, yëf yi su ci paree nag ba nas dinañu ko jébbal euh, njiitu euh, réew mi lenn nag ci li nga xamee ni nag nee nañu andi na fa ñàkk déggoo mooy présence wala déet président de la république ci biir conseil supérieur de la magistrature léegi ci wàllub justice activiste boobu di Bah ak imam ndaw ñoom nag démb yoon daan leen ñetti weeru kaso yoo xam ne dañu koy euh, tëdd euh, pour diffusion de fausses nouvelles nag yoo xam ni dafa concerné euh, njiitu gouvernement bi Ousmane Sonko ñu yokkal leen ci alamaan bu tollu ci cent mille francs CFA. kii di Alassane Fall moom tamit nekk militant ci euh, Pastef moom euh, yoon daf ko teg loxo moom tamit jamono ji ma nga garde à vue euh, li koy toppee mooy outrage à magistrat moom nag dafa menacé woon juge yi ni suñu libéré kii di Bah ak Imam Ndao dina ko diggaale ak ñoom leneen ci xibaar naata ajo mbirum ujaaj yi nga xamee ni démb fële ca AIBD xawoon na tàng nag ci euh, ngoon ci waaye waxoon nañ leen nag 23h30 am vol boo xam ne dina leen yóbbu fële ca Makka Air Sénégal ñu génne ko ci circuit bi dugal waa Flynas di compagnie aérienne bu Arabie Saoudite ci leeral dañ ci teewlu euh, Ndeye Mati Dieng. sonn ak jaaxle moo daal ujaac yi li nga xamante ne dañoo war a aji ci Makka ba tey jile rek ci suba amuñu woon benn xibaar ci avion bi leen di yóbbu. naka noonu itam ci ban heure la ñuy dem te moo ne de 7 heures du matin la jóge seeni hôtel ndax ñu ne dañ leen a waxoon ne avion bi leen di yóbbu taxaw na Air Sénégal yóbbootu leen waaye léegi Flynas mooy yóbbu ujaa ci des yépp ba ñu agsee nag ba ci hangar de pèlerins ñu ne yaakaar bu tas lañu am ndax xaajale dafa am ci diggante ujaa ci ñi leen nga xamante ne dañoo bokk ci privé bi ñoom la ñu jël di leen enregistré waat di leen defalaat yeneen billets yu bees ñoom ñi nga xamante ne ci commission nationale bi la ñu bokk ñu daal di leen tegee côté joxuñu leen benn xibaar ci heure bi ñuy dem naka noonu itam avion bi leen di yóbbu lu ni mel nag ba ñu ko muñee ba ay 16 heures ci la seen boolu muñukaay fees ñu daal di yëngu-yëngal xamle ni dañoo bëgg ñu lëtt leen wara ñu firi leen waaye bëggaatuñu fanaan beneen guddi fii ci Sénégal di xaar avion bu yees. loolu ñu def nag mel na ni tax nañu dégg leen ndax ay simili ginnaaw gi rek commencé nañu di leen enregistre ñoom ñi la nga xamante ne ci commission nationale bi la ñu bokk ba xamal leen sax ne 23h30 ci la avion bi war a départ tey jile ci guddi. bu dee xibaar boobu di wér nag ñu ne dañoo meroon ba daal di dem fa nga xamante ne fa la avion ngi di teer mu di tarmac bi suñu source bi ne loolee amul. wàllu éducation nationale moom ma nga woon euh, ca yenn école fële ca Médina. di ñaax gune yi ak enseignants yi nag ñu gën a setal euh, daara yi euh, moom Moustapha euh, Guirassy di fa annoncé ay construction salle de classe ay salle informatique ngir rek gën a tàggat élèves yi ci mbirum digital dañ koy teew ci micro Aminata Mbaare Sow ak Ababacar Camara. soo nag dafa nekk loo xam ne tey jii dafa nekk au cœur de transformation bi ñu bëgg. kuy denc xaalis bul denc torop ku bëgg ëllëg noppale ko. xalaatal ni ci sa doom soo investir rek ëllëg di nga noppale ko la meilleure le meilleur investissement mooy nga def ko ci xale yi état bii tamit ak projet boo xam ne ñu ngi koy wax muy transformation systémique du am mukk du am mukk du am mukk fekk xale yi yaruñu leen changer leen jikko yi ñu am logiciel ak mode de fonctionnement boo xam ni mooy baax pour réew mi jub jubal jubanti président di ko wax waaw fi mu gënee yomb ak fi mu gënee baax moo ci xale yi kon damay ñaax enseignants yi ak maîtres yi ñu góorlu ci ñu wax ci euh, mbirum redressement fiscal euh, compte bu euh, groupe avenir communication ñu bloqué ko patron entreprise bi di Madiambal Diagne ni daal ab taxation d'office la maanaam impôt yi ñu xayma diggante 2020 ba 2021 toll ci 91 millions de francs CFA muy mesure boo xamee ni moom Madiambal Diagne neen na nar am ay conséquences yu doy waar ci boîte bi ak tamit personnel entreprise bi Euh, sommet Corée Afrique première édition bi di tàmbali euh, tey jii euh, Yacine Fall ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères moom moo jiite délégation bu Sénégal ci ndaje boobu nga xamee ni tey lay door soxna naata hmm, xibaaru tàggat yaram ci la ñuy jàll ak Sadio Mané mi forfait ci ñaari match yi ñu jëm ak ak équipe nationale ñaari match yi tolloog ñetteel ak ñeenteelu journée éliminatoire coupe du monde 2026 six eh, ci diggante Sénégal RD Congo nga xam ne ginnaaw suba lay doon ci dimanche ñu dajeek Mauritanie moom nag Sadio Mané du ci bokk ndaxte dafa ñëw am euh, gaañu gaañu ci euh, genou euh, droit bi loolu tax ba fédération sénégalaise xamle ko ci communiqué ni jouru Al Nasser boobu du bokk ci ñaari ndaje yooyu ki di Aruna Sangante nekk défenseur moom tamit forfewul waaye fi mu nekk ni dafa nekk sous surveillance médicale ndaxte dafa am ay euh, douleur ci euh, mollet bi soxna naata. jërëjëf sëñ Cheikh ci yaatalu xibaar yi bu leen fàtte ci kanam de quoi est-il le nom ak jàngat bi dinañ ci ànd ak doyen assan Samb egsi na ñu nuyu ko sax ba noppi ñu ngi lay nuyu di la ziar sàmbeen bi namoon nañ la. <laughs> maa ngi lay ziar soxna naata ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Mm, di ziar ñoom Malick Cheikh. ziar c'est vraiment am mbégte ñëwaat. TFM euh, mm. tey ah. parce que xaw naa fi gëj depuis. avant élection yi <laughs> moo tax ma ne namoon nañ la. voilà maa leen maa leen c'est un grand plaisir merci beaucoup. jërëjëf xanaa ñu ñëw dolli ndékki bi rek bu soobee yàlla ndax ñaari sàmbe ni ci daje say jëlee ci suba. merci beaucoup dinañ ànd ak ci yow ci kanam tuuti ci jàngat bi ñu dem xooli yëgle yi li ñu xëyee tey ak Cheikh Diop. alors Cheikh ginnaaw ba ma la nuyuwaatee yëglekaay li ñu xëyee tey dañ koy tàmbali comme tous les matins ak l'observateur la daal di waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di xëtëm bu njëkk jëm ci wàllu courant bi ak itam yenn ci ay produits pétroliers ak itam gaz butane bi l'état étouffé la rek daal di xëy jukki moom l'observateur lu toll euh, ci 600 milliards yoo xamante ni at bu jot Sonata euh, jàppal ne euh, dina jugee ci poosu gouvernement bu Sénégal daal di jëm ci wàll wi le pouvoir it mi nga xam ne itam moom la ñu nemmeeku ci diggante tension euh, financière ak itam euh, pression euh, populaire bi maanaam boo ko déggee mooy askan wi li nga xam ne itam ñu ngi koy amal ci ñaxtu cher naam cherul war nañ koo wàññi am déet ak itam li nga xam ne nag moom moo di exigence wu FMI maanaam exigence li nga xam ne moom la FMI di toppee réew bu Sénégal war nañoo war a mën a xaar. ay bés yoo xamante ni itam dina mitti ñàkkul ne benn boroom xam-xam moom moo ci daal di addu gis nañu nataalu ki nga xam ne moom moo di njiit bu réew bu Sénégal moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xam ne ah, moom moo di ah, ah, xët bu njëkk bu yéene kaay wile di l'observateur l'observateur di katt na bu baax a baax ak itam ajub mag atum ren maanaam ajub mag atum 2024 Air Sénégal anam wi nga xam ne itam noonee la doxalee ba yenn ci ay ujaaj ñuy nemmeeku retardu vol ak yenn dañu ñuy xeetoo gouvernement bu Sénégal itam lees def ban rek daal di dabbu wàll wi lu nu mel euh, mënees ko lire ci l'observateur l'observateur leneen ci luñ ci mën a lire bokk na fa nga xam ne moom moo di euh, ca tribunal jàppal ne nag ñaar ñoo xamante ni dañu doon génn kenn ki aw étudiant la kenn ki aw avocat la ba ñu taqali ko euh, jàppale nag étudiant bi dafa jël yenn ci ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ci biirum nénk mu daal di koy génnee ci li nga xam ne moom moo di penc mi ñu waxtaanee yaram nga xam ne euh, day euh, calte wi jaaba jonge ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal waxtaanee na euh, diggante set ak ñenn ci ay sénégalais yi mënees ko lire ba tey ci l'observateur équipe nationale bu Sénégal ak itam éliminatoire mondial 2026 xam nga ne itam groupe bu Alioune Cissé bi yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante nii am moom la ñu ci nemmeeku ginnaaw itam maanaam ñancoo wi nga xam ne dañu ko rek daal di forfait ñeneen ci ñoo xamante ni itam maanaam ñu ngi leen dippee ay incertain maanaam seen ay mbir leeragul ku ci mel ni ki nga xam ne moom moo di Aruna ak itam euh, Nampalis euh, Mendy lu nu mel euh, mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur l'observateur di kat ñu àddu ci beneen ab yéenekaay mu di le quotidien nouvelle saisie wu cocaïne fa nga xam ne moom moo di fa jege lool Kaolack xam nga ne itam la ñu nemmeeku woon ci kër Ayib ci gaaw bi nga xam ne moom la ñu weesu te mu tolloon ci 30 kilogrammes bu ñu ko xayma ci suñu ay koppar daal nay ëpp toll ci ñaari milliards yoo xamante ni euh, jëfkatu ñaawteef yooyu nag ñu ngi ko doon jéem a rawale dugal ko euh, fii ci réew mi daal di ko ci tas lu ni mel itam ñu daal di koon def ci aw ndaamaar marque yundaay beneen ci boo xamante ni euh, moom la ñu nemmeeku fa nga xam ne nag moom moo degee ca Gandiaye Gandiaye naata toll na ci fanweer ak ñett ci kilogramme ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di douane sénégalaise ñu ngi ko nangoo ci ñenn ci ñu ko doon jéem rawale nit ki Euh, démb ñu àddu euh, ci libération libération di kaat bu baax baax euh, ci yenn ci ay projets yoo xamante ni jot nañu ko taxawal fii ci réew bu Sénégal lu ci mel ni terre bi ak itam pont bi ba ci sax li nga xam ne moom moo di autopont yi ak itam pikin irrégulier lenn ci loo xamante ni itam ñu ngi ko fi doon taxawal ah, bokk na ci yoon wi nga xam ne nag moom moo jëm njum ak itam wuro gi ba sax fa nga xam ne moom moo di ah, Bakel ah, programme auto autosuffisance ci wàllu ceeb bi lenn ci ay koppar yoo xamante ni moom la ñu ne dañ ko cee jukki jàppal ne jëf ji ak li nga xam ne moom moo di wax ji méngoowul tax na itam Cour des comptes daal di ci am aw taxawaay wu yaa ñu daal di jukki benn ci aw poñ aw woo xamante ni daal dañ koy nemmeeku lu ci mel ni projet bu pikin Argentine uruguayen bi nag lu toll ci six cent quarante euh, euh, euh, cinq six six virgule quarante cinq milliards de francs CFA yoo xamante ni moom lañ ne moom lañ ci sopp projet bu réhabilitation bu route nationale Ndioum Ourossogui ak itam Bakel six virgule trois trois cent trente quatre milliards yuñ ne moom lañ ci sóob BRT bi deux virgule neuf milliards ci suñu ay koppar programme autosuffisance jëm ci wàllu ceeb bi treize milliards de francs CFA baax euh, projet wu euh, parc euh, technologie ak itam numérique Sononata jàppal toll ci quatre virgule quatre cent quatre-vingt-quatre milliards projet bu pont auto ak itam autopont fii ci réew bu Sénégal douze virgule soixante milliards lañ ne moom lañ ci rek daal di sóob projet wu TER bi nag un virgule six cent quatre-vingt-quinze milliards ci suñu ay koppar milliards yi ñuy tudd fii ci réew bu Sénégal sànq maa ngi koy wax bari na lool te askan wi nag jàpp nañ ne lenn ci loo xamante ni itam ay doom yaadama àddu nañu ko ci doon na ay xibaar yu wérul ba tax itam alalug bokk moomeel boo xamante nii ba tey mu ngi ci ñenn ci sénégalais yi ñu àddu euh, ci li nga xam ne nag moom moo di euh, projet euh, bu FONGIP nga xam ne crédit mutuel moom moo ko daal di financé lu tollu ci deux cent cinquante millions yoo xamante nii daal nañ koy sàcc ginnaaw itam aw càmbar woo xamante ni daal nañ koy def ca biir maanaam aw audit intérieur lu soxal loole nag jàppal ne. Euh, ñett ci ay cadre yoo xamante ni ña nga bokk ci crédit euh, mutuel euh, bu Sénégal daal nañ leen ci joxoñ baaraamu tuuma ñoom ñooñee nag doon yokk li nga xam ne moom moo di liste wa bu ko defee ñu mën a jëfandikoo yooyu le koppar mënees ko liir ci li nga xam ne nag moom moo di libération libération itam ak image exclusive bi nga xam ne itam daal na koy rek fësal ancien président ak Dora Gueye ak itam ki nga xam ne moom moo di Zakiloullahi Sow moom mi nga xam ne moom moo ko yóbbu bu euh, ca yoon jàppale nag euh, seen i aw diggante euh, ma nga sosoo fa nga xam ne nag moom moo di ca Arabie Saoudite ginnaaw libération beneen ab yéenekaay bu ñuy àddu mu di tribune tribune itam ak ñi lee nga xam ne ba tey ñoom ñoo amalante ak wàllu yoon ki ci mel ni homme d'affaires yu leen di Doro Gueye ak itam ba Diakhaté ba sax ki nga xam ne moom moo di imaam ndaw ñoom ñëpp jàppal ne ci la jamono nag caabi féete na leen ginnaaw ku ci mel ni Imam Ndao ak itam ki nga xam ne moom moo di Bah Diakhaté jàppal ne toll ci euh, ñetti weeri kaso ak itam amande woo xamante ni euh, daal nañ koy teg ci seen ak ndodd lu soxal itam li nga xam ne moom moo di euh, compte bu groupe avenir communication dañu ko rek daal di bloqué page 4 bu tribune itam fësal na ak kàddu yoo xamante ni moom Babacar Ba bu forum bu justiciable moom moo ko rek daal di jukki le judiciaire doit éviter des décisions qui relève donc du politique ay kàddu yoo xamante ni moom Babacar moom moo ko daal di yëkkati tribune beneen ab yéenekaay boo xamante ni euh, daal nañ ci àddu moom Walf Quotidien jëm ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, cocaïne bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci réew bu Sénégal maanaam xeetu sibet sinébar wile bëri na ci ñoo xamante ni daal nañ ki àddu ku ci mel ni commissaire Keita di ancien directeur bu OCRTIS la mu xam le moom moo di nag lu ni bokk na ci yànq wi nga xam ne ñu ngi koy rek daal di yànq wala bokk besoin d'alimenter Euh, un marché intérieur ay kàddu la yu mu euh, euh, biral keneen koo xamante ni yëkkati na ay kàddu ci wàll wi moom Mame Matar Gueye bu ONG Jamra la mu xamle moom moo di nag laxisme wi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku ci application bi jëm ci li nga xam ne moom moo di loi bi page 7 bu Walf Quotidien moom moo rek daal di xaatim lu ni mel bés bi le jour la ñuy àddu ak itam lu soxal wàllu yoon tabaski fa nga xam ne nag moom moo di euh, ci rëbës ak ñi lee nga xam ne euh, jot nañoo amlante ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci wàllu justice bi keneen koo xamante ni itam kàddu yu warawul la daal di yëkkati jëmale ci procureur ak itam ki nga xam ne nag moom moo di juge yi jàppal ne Alassane bu Sonko ci la jamono mi ngi garde à vue soxna naata laas di kat ba tey ak ki nga xam ne euh, moom moo di euh, euh, ki ñu dénkoon li nga xam ne moom moo di aéroport international Blaise Diagne moom Abdoulaye Dièye daal dinay yëkkati ay kàddu ci li nga xam ne moom la ñu ne yenn ci ay avantages ña fay liggéeyee ñu ngi ko làmboo ba tey kàddu yoo xamante ni daal dina ko yëkkati jëm ci anam ba nga xam ne noonee la ñuy jëlee source a nag dikk na ci ki nga xam ne nag moom la ñu ko jox ci la jamono moom Cheikh Bamba Dièye daal dinay def aw taxaw seetlu ci kër googee nag lañ ca war a jëwyanti moom Cheikh Bamba daal dina koy joyanti bu baax a baax bu ñu taxawee euh, ci lu mel ni wàllu euh, carburant bi nag euh, ñenn ci ñoo xamante ni itam jot nañoo wàññi li nga xam ne moom la ñu doon jot weer bu jot ku ci mel ni chef bu service bi jàppal ne weer bu jot mi ngi doon laal lu toll ci trois cent cinquante litres jëm ci wàllu carburant jamono yi nag daal dañ ci wàññi lu toll ci cent litres ki nga xam ne moom moo di directeur exécutif ak itam yeneen ci ay coordonnateur ñoom nag weer bu jot doon nañ jot lu toll ci huit cent litres Euh, jamono yi nag euh, ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di 700 euh, litres weer bu jot ki nga xam ne moom moo di chef bu bureau bi nag moom weer bu jot daan na laal lu toll ci 150 litres ba tey jëm ci li nga xam ne moom moo di carburant loolee nag daal nañ ci foqati lu toll ci 50 litres ci la jamono nag mi ngi ci 100 litres ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bamba ak ñenn ci ñoo xamante ni ñoom la fa fekkoon xam nga ne lu tollu ci rek 500 litres yoo xamante ni daal nañ koy jël ci 1000. mille litres yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon am weer bu jot mu mel ni loolee lépp daal di ëmb euh, litre carburant yi nga xam ne euh, doon nañu ko euh, jot soxna naata témoin dikkaat ba tey ci aju mag atum 2024 ak itam ujaaj yi nga xam ne ñoom ñoo war a mën a dem sànni jamra ca minam ñoom nag jàppal ne seen xel du jug benn yoon ci li nga xam ne nag moom moo di Air Sénégal compagnie wi nga xam ne moom moo leen waroon yóbbu ñoom ujaaj yi fii ci réew mi te itam gàllankoor tabe bari na ba tax itam ñu tagga témbe woon fa nga xam ne moom moo di ci aéroport international euh, Blaise Diagne ñu mujj leen a jaga jangatee ci ay hôtel euh, tax na itam suñu ay naataango yu euh, témoin daal di ci def aw taxaw seetlu bu yaatu ñu àddu ci wàllu tàggat yaram ak itam mondial 2026 jàppal ne itam Sadio Mané daana rek wute match yi nga xam ne moom la ñu nam amal suñu diggante ak RDC kongo ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Mauritanie ndax itam gaañu gaañu woo xamante ni daal dina koy mooy euh, am coupe du Sénégal euh, bokk na ci li ñu waxtaanee euh, ci li nga xam ne moom moo di bile yéene kaay jaraaf ak itam Casa seen ab taxawaay ñu àddu ak itam mbirum ki nga xam ne moom moo di Chérif Ndiaye attaquant bile. la mu xam le moom moo di mësta tàllal loxo ngir rek euh, daal di euh, dikk euh, Moussa Niakhaté itam défenseur centrale bi moom itam mu ngi ci li nga xam ne moom moo di yéeni kaay wile wax na yi li nga xam ne moom moo di mébétam ci match yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ñu dem waxtaanee wàllu transfert bu kii li nga xam ne nag moom moo di Mbappé aw gént la woon boo xamante ni mujj naa doon dëgg ci la jamono itam ma nga ci Real de Madrid lu toll ci juróomi at yoo xamante ni daal na koy xaatim ak ñoom bëri na ci ñoo xamante ni ay supporters Real lañu ci la jamono ñu ngi euh, jubilé Soxna Naata ñu jeexalee ko ak li nga xam ne moom moo di stade stade di kat ak euh, téeméeri loolu euh, match yu nga xam ne moom sélectionneur bu euh, équipe nationale bi daal dina koy am moom Alioune Cissé ñu ngi wax ci li nga xam ne nag moom moo di centième daanaka bëri na ci ñoo xamante ni jot nañoo yor équipe nationale bu Sénégal moom Alioune Cissé moom moo leen rek daal di raw ci wàllu woowee ci match yi nga xam ne moom la teewe soxna naata ñaareelu pàcc yu ñeel li yéen kaay yi xëy fësal bés ni ki tey yemook ñaareel bi numéro de la semaine ci seen émission info li nga di euh, jotaay wi jox dig daje mbokku téléspectateur yi nga xam ne euh, ñoom ñoo ñuy euh, teewlu ëllëg incha allah waxtu wi ñu mel daañu fi dikkaat baaxee leen di yéenekaay yi xëy fësal jàngil jëf. incha allah merci beaucoup Cheikh Diop ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ko doon yëraat merci Cheikh ayca léegi dañuy ñëw jàll ci de quoi est-il le